pëccëxoo jaxasoo fi mu ne réewum Sénégal turbine yéen kaay ne ma senegal kay fi ne mooy ndumbelaan néew fi doole daanaka tooñ la yéen kaay bi naan man ba tey réewum Sénégal gii nga ne jàppal ni nag séddoom bukki la ñu def réew mi Sénégal mooy réew moo xam ne daanaka as ngato la ngato soo xam ne dañu koy daal di séddoo seddoo su doy waar réew mi ñu ne di Sénégal ñun askan wi sax bu ñu moytuwul ñu séddoo ñu suñu biir turbine yéen kaay naan man Sénégal ma la république la wala te li gën a leer gën a mooy as ngato xam nag dañ koy daal di séddoo ñun askan wi nag xamuñ ci lenn yëguñ ci lenn ñuy daal di doxal suñu digg bopp gi di ping pong te kenn teguñu métit gii ku dul ay politiciens réew mi mel ni tulleeg maale daal di jaxasoo Sénégal nag mu mel ni politique kese kese képp moo fi am politiciens yi ñu dunduloo jaxan na ma goo xam ni maar day taali jël askan wi nag jël leen otage takk buum ci seeni baat di leen watat fi ñu ñu jaar loo la ñuy jaarloo li ñu ñu bëgg dund loo la ñuy dundloo li ñu ñu bëgg xoolloo it ñun askanu réewum Sénégal la ñuy gis gis ñu nekk seen i calcul yoo xam ni maar day taale te kan moo ciy loru xanaa ñun askan wi ñun askan wi ci boppam ñooy loru ci politiciens yi nga xam ne bu dul calcul nga ci ay manigance yoo xam ni maar day taali mani la ci politique ñi nga xam ne ñoo doon noon démb mën nañ doon xarit à tout moment ci politique ñi nga xam ne ñoo doon saagante démb mën nañ ànd tey à tout moment ci politique askan wi daal mooy naxasa kandang gi ndax ñoom ci boppam la ñuy daal di utiliser xaaji guddi mani la gaay yi yeew waxtaan ci seen biir laata askan wee yeew ñu waxtaan seen biir fas ñuy fas askan wi moom du ñu gis dara bu ñu xëyee jël doom taal tuur ci seen kanam naan leen topp leen ma ñuy toppaate ni ay mala jafe-jafe bu ne am ci réew mi lu ne ñu dégg ko ci réew mi lu ne ñu daal di dund ci réew mi te kenn teguñu ko laala wax nii ku dul politiciens yi vox populi naan maan moo taxit sëriñ Bass Abdou Khadre day ma ngay wax ma ngay wax nag ci ñi nga xam ne daanaka ñi ngi dal ci tarixa murit sëriñ Bass Abdou Khadre naan leen da ngeen xamul tarixa bi rek da ngeen xamul ne ma ne la jébbalu ci murit moom moo di nangu amub kilifa bu ne la jaaral nii nga jaar bu laa bàyyil nga bàyyi te Sénégal coowoo yi nga xam ne am na fi Serigne Bass Abdou Khadir naan bu ndox bu sedd am cee Sénégal daal di amaat dal gii ma ne la mënees na ko gërëmee Serigne Mountakha de ndax nag tarix ak murid du dug mbooloo goo xam ne lu ñu def daal di génn wax am na lees loo xam ni mënee su ko wax de waaye jàpp leen ni murid dëgg-dëgg mooy jàmbaar waaye jàpp leen ni reetaanuk Serigne Mountakha gii moom Mbàkke Balla sax mooy jàmm ak dal ci réew mi moom Serigne Mountakha daal mënees na ko tappalub garaat ci jàmmuk réew mi turbine yéene kaay ne ko république bëggal nañ ko tappalus garaat ci ni nga xam ne nag noonu la yore yenn dossiers yi waaye ba nii dafa am yoo xam ne dafa tàng suñu xol yéen kaayub dee média bi naan ña nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi jiite ñu ñu jox leen sunu alal dénk leen ñuy jël sunu alal di roñ-roñ di ko sàcc ci anam goo xam ne doy na waar lool ñooñu ma ne la fan la yoon féete ak ñoom yéen kaay bi naan maan fàtte xaju fi coowal covid 19 bi daal dina fi jaar ñu ne audition yi def nañ ko ba daal di koy boucler fi mu ne nag jébbal mbir yi procureur moom moo ci des procureur jot nga loo wax ñi ñu mille milliards loo ci wax askan wi nga xam ne ñu ngi leen di war ngir ñu fay leen loo ci wax le témoin mooy yéen kaay naan ko déet la ñu war a wax kay mooy yaas ak nga xam ne fas na yéen tàbbi géej ci réewum Sénégal fa yàllaahu la soleil yéen kaay naan kon soble bu yokkoo ko waral moo ne day ñang cay joxe ay gindi turbine yéen kaay ne ko kaay moom kay soble daal dinay weesu ñaari téeméer kilo bi saak ba doon jar ñeenti junni ma ngi ca juróom léegi bi ñuy bayee ci réew mi jóge ci ñeenti junni bu manqué ñaar téeméer tàbbi ci ñeenti junneeg juróom benn téeméer réew mi laj bëri ay jafe-jafe man Juan Branco daal di libéré maître ma ne la daanaka théâtre day moo am ci tribunal bu ndakaaru niki démb aljuma ci guddi leen la jàpp yóbbu la dik samedi la rëbës dimanche libéré la altine Juan Branco yaa mën ci ñu naan kon nag da nga nekk ci contrôle judiciaire Ismaïla Madior Fall moom naan mën nañ koo atte à tout moment de attention moom Ismaïla Madior Fall sur soi di ma xamal ne daal dinay àddu ci coowal Ousmane Sonko ak ña nga xam ne ñoom lañ ko jàppandool ci coow moom ministre de la justice justice di ma xamal ne moom Ousmane Sonko daanaka génn na ci grève de la faim ba ndax gaawu gii daal dina dinay ndékki terewul Ousmane Sonko mi ngi fii ci l'hôpital principal di jëli soin Pape Alé Niang moom grève totale la def lekkul naanul te Pape Alé it fajuwul Walf Quotidien naan leen bu leen daw de ma ne la Juan Branco mii ngeen xam ni fatt ngeen ci askan wi xëy suba bàyyi mu dem coow li mooy nag ndax jaroon na ko l'observateur naan li jara lijjanti kay mooy candidat président Macky Sall bi fi mu ne nag APR ma nga tas tasar nip sabar diggante Amadou Ba ak loo guerre gi mel ni tulleeg maa la ci ku ne ku muy jàppale moom président Macky Sall xaatim loo leen loo xam ne ku ñu li doo am sañ-sañ génn ci penc mi wax ñoom candidat yi ci boppam ñi ngi négocier ci seenug biir le point yéeni kaay naan maan Youssoufa Niang APR ma ngay xam leen ni day Benno Bokk Yaakaar ku mu tabb ku dul Amadou Ba day yàq na ko ndax Amadou Ba dong la ñu mën a tabb fi mu ne mu indil ndam Benno Bokk Yaakaar ci réew mi le mandat yéeni kaay naan maan bu leen fàtte Karim Meïssa Wade cré yi daal dinañ koy seeyal moom Karim Meïssa Wade ñu ni ko mën ngaa bokkaat ci élection ci réew mi boo moytuwul léegi-léegi man la Karim dina dëkkaat ci réew mi waxtu woowu ma ne la suñu téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti yi ñu ne moom Karim Meïssa Wade moo ko jël ci askanu réewum Sénégal ku ñu koy fay xaalis ba nga xam ne nee ñu Karim Meïssa Wade ma ne la moo nu ko yoreel kan moo nu koy fay ndax nag mënoo xëy ji nit ne ko téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti milliards la jël ci sab askan yow askanu Sénégal booba ñuy dundee ndool goo xam ni maar day taali sonn lool nga xëyaat ne ko kala ko jiñoon seeyal nañ ko yow ci boppam saabu la neexee ñëw daagu si si réew mi yeewi askan wi def nan l'enquête sampub laaj ndax nag yeewi askan wi dafa nar a soo bu dëgg-dëgg ci xaajaloo ndax nag diggante Pastef ak taxawu ci boppam diggante baa neexatul libération yéen kaay nan maan diggante Pastef ak nguur gi kañ lay neex fi mu ne daal jàpp gaa ngi mel ni tulleeg maale daanaka waa Pastef yëpp ñu ngi ci kaso may mun a jéey maire bu padduwaa tàbbal nañ ko kaso yóbbu pavillon spécial Alioune Ndiaye nekkoon sergent ci pompier yi jàpp nañ ci cadre jàpp nañ ko waxtu woowu yéen kaay bi naan ñeenti téeméer juróom fukk ak ñeenti pilule xam ne volé ko daal di dippee ci réew mi tamit tàqali xale yi ak seen sago yéeni kaay bi naan maan coow li li liyee de gouvernement bi daal lu mu wax te waxul ci màngaan gi waxul lenn Masamba Mbay dëkk sa faas booy nee na fukk ak juróom benn ñoo xam ne sama njaboot lañu daal dina ñuy bokk ci gaal gi nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom ñett ngi nii mu réer ci waaxu Sénégal yi ba tey kenn tegul xale yooyee ba te daanaka toll nañ ci téeméer ak juróom fukk ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm abonné su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim